docteur Mamadou Samba Hann maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors euh, ngay économiste sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom euh, ñu gis ne euh, jamono ji depuis bi nga xamante ne reportu élection présidentielle njiitu réew Macky Sall annoncé na ko koom-koomu réew mi dafa deltu ginnaaw bu baax a baax loolee lan la mën a jur ci aw dëkk. waaw li muy njëkk jur moom mooy gis nga booy defar économie li ñuy njëkk a wax balaa ngay ñëw mm. dafa am lu ñuy wax ay outils d'analyse stratégique. outil d'analyse stratégique yooyu dafa am benn bu ñu ciy wax PESTEL ça veut dire que dangay ngay ñëw nga xool environnement dëkk ah, environnement politique environnement économique environnement social environnement culturel environnement écologique environnement légal environnement yooyu yëpp ngay xool ba pare moo bu bu bu bu yooyu yëpp taxawee normal yi ngay gën a mun ngay def affaire mais bu ci benn rek normalul mënoo def affaire te xaalis buggul bruit buggul bruit te nii fu mu am bruit bi ñi koy dugal seen xaalis xam nañ ne xaalis bëggul bëri mais ñu ko dugal seen xaalis léegi nag secteur yëpp a ko yëpp mhm. comme ñooñu dugalatuñu xaalis te comme économie yu mel ni ñoom suñu économie yi dañu extraver ci trop dañu dépendre trop de doo ba nga xamante ni mënuñu toog lu yàgg di nekk ci situation yi parce que suñu économie dépend ci biir dafa dépendre trop trop ci investisseurs yi dafa dépendre trop ci échange am au niveau international et cetera ñooñu ñëpp nag dañuy téye seen loxo di xaar parce kenn du dugal ci xaalis tànn te wóoru la alors mu mel ni sax secteur privé bi bokk na tamit ci ñi nga xamante ne euh, daanaka mbir mi laal na leen ba ñu génn àddu ci euh, wàllu bu ni mel euh, mu nekk nag loo xam ne tension politique la parlementaire judiciaire waaye tamit sociale. oui ñoom tamit li li ñuy wax nii loolu mu yoon la parce que en fait ñoom xam nga ñoom ñoo yore économie économie dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk normal buy dox mooy secteur privé bi moo ko yore ñoom ñooy créer emploi ñoom ñooy créer ay richesse ñoom ñooy indi lii tax ni ñëpp lépp ndaw waaw ñooñu tamit fi mu nekk nii bu ñu gisee ni dëkk bi mooy yi ma doon wax noonu indicateur yooyu stabilité boobu amul mais ñooñu dañ ci sawar duñu sawar parce que seen activité yëpp day taxaw xam nga économie dafa war di daw dafa di dox mu am échange yi ñi mun a jaay ñi commercialiser mais dans la sécurité mu am ay infrastructure am lépp nit ñi mun a def affaire yi muy dox bu baax a baax a baax loolu mooy dundal économie mais bu demee ba foofu loolu taxaw rek ñëpp ko yëg mhm. donc euh, patronat bi tamit moo tax ñoom ñi ñu taxaw de mise en parce que fi mu ne ñoom it seen lépp taxaw na mais loolu loolu moom mooy li ñuy njëkk a xool parce que loo mun ci def ci dëkk bi tey yow agent euh, euh, politique yi ñi teg ñu teg foofu doxul normalement te loo fa teg du def mënoo hmm. fa teg dara mu def donc loolu prioritairement mooy conditionné économique ba pare hmm. surtout si dëkk yu mel ni suñu dëkk donc loolu bu taxawul leneen mënul taxaw alors gis nañ sax ba ci marché yi euh, ni mu daan feesee léegi amatul mu mel ni sax nit ñi fi mu toll nii ku ci nekk da ngaa téye sa tànk. waaw marché yi lu tax mu feesee te xam nga tamit ñiy nekk ci marché yi tamit ñoom ñoo nekk ci économie ñoom ñooy dem jënd ñoom ñooy ñëw indi waaye yow bu fekkee ne yow da lay wóor ne da ngay dem jëndi ñëw xeex gi commencé doonante yi commencé yow est ce que nga sawar a dem parce que boo demee non seulement li ngay bëgg peut être doo ko am ci prix bi nga koy amee parce que xam nañ ni tension am na ci dimension yëpp ñii indi su ñun suñu marché yi nga xam te ñu extraverté dañu extraverti li cëpp dañ koy importé ñooñu ñëpp tamit dañuy jël ay dañuy jël ay mesures de de protection parce que dañuy moytu léegi boo demee ci marché yi tamit kii di jënd tamit moom it problème am moom mooy fan la jëlee ressource parce que boo seetee économie bi lii dafa laal économie bi yépp moom mooy nit ñi liggéeyatuñu parce que chef d'entreprise yi investir atuñu xamuñu fu ñu jëm xam nga balaa nga investir da ngay xam foo jëm yow nit ñi liggéeyatuñu xaalis duggatul amatul vigueur économique boobu nga xamante ni yow di nga ci mën a génn loolu yëpp doxul nooy mun ci def c'est obligé mm-hmm. c'est obligé nga daal di ñëw da def très attention. lu ci mel ni marché Castor par exemple wala sax Tilène euh, gis nañ euh, jaaykat yi ba ci sax clients yi ñoom tamit euh, yëkkati nañ àddu ci wàllu boobile. waaw mais ñooñu tamit moom mooy li ma doon wax nii rek mooy li may continuer ñooñu jaaykat mënatuñu jaay parce que kii jënd foog mu liggéey bu liggéeyul nu muy jëndee kii jënd tamit bu fekkee ni jëlatuñu parce que man mii di jàngale mun naa la ko wax professeur. danañ sama étudiants a mag a mag te dem nañ ba master pour am stage bu ñu mën a dem def pour mën a ñëw def seen mémoire dañ ko am mënatuñ ko sax am waaw léegi ñu yow créé emploi ñi fi amoon emploi ak néew seen xaalis bi ñu amoon seen entreprise yi ci bëri dañ leen di yóbbu fu mu nekk nii am na ñu ñu commencé yóbbu chômage euh, économique parce que entreprise boobu tamit mënatul faire face à à ses charges am na ñoo xamante ni peu bi ñu yore woon comme inflation bi dafa yokk lépp ko yokk doolu leen woon mais léegi yokk bi nii day tax ñoom mënatuñu jënd nit ñi yëpp dañuy nekk ci situation de survie. Mhm. mooy dañuy dundant ñoo fay essayer nan ngay lekkee nan ngay naanee nan ngay loolu rek ngay dund fu mu nekk nii. alors daw suba a am mhm. loo rek loolu tax lépp nag nit ñi jëndatuñu. parce que yoon wi doxul mu mel ni yemul ci marché bi donc tali bi tamit euh, naka noonu loo xamante ne euh, jëm na ci perte yi nga xamante ne nag moo ko mën a jur mais rawatina dem ak dikk bi euh, mu mel nii dina indi tamit jeexintal ci wàllum koom-koomu réew mi. waaw loolu loolu tamit dëgg la parce que xam nga lu tax parce que kii dem ak dikk day fekk mu am li tax muy dem di dikk mais bu ko gisul du ko def. ñii di koy dawal ñu mel ni comme société bu mel ni Dakar dem dikk mais Dakar dem dikk day def attention parce que Dakar dem dikk cible la chaque fois bu problème amee parce que ñii di ñii di xeex ak ñoom dañ koy gisee comme patrimoine wu ñee ñuy xeexal léegi nag fu mu génnee dañ koy topp léegi Dakar dem dikk tamit day dem def attention day xool fan lay jaar day xool jour yoo xamante ni moom mënatul dem te du Dakar dem dikk rek même ñeneen ñi tamit parce que man mënu ma am sama kaar wóor ma ni bu ma génnee fii ñu toj ma damay def nànk damay gën a def nank te ñi may liggéeyal dama leen naan def leen nànk parce que lii mooy outil de travail bi buñ ko taalee ñun ñëpp dañuy am problème. Mhm. yamul ci loolu kii jaay essence c'est même chose parce bu bu tàkk amee yow nii di jaay essence yow mun nañ la song parce que gis nañ ci ay station yu bëri yu ñuy song ñoom it dañuy def attention parce que mënoo jël sa xaalis ko fenn xëy ñu taal taalaale seen gestion de stock yooyu yëpp dañ koy calculer dañ naan ah wóorul il faut que nga def attention il faut booy commandé nga def camion bi ngay indil moom it day def attention parce que bu tàkkee mun nañu attaquer ñoom ñëpp donc ñoom ñëpp dañuy jël ay mesures de présence pour sauvegarder seen bien évidemment ñëpp a koy yëg mhm. ñëpp koy yëg surtout mooy li ma la doon wax rek mooy économie bi du dawati parce que loolu yëpp boo ko boolee synergie la mooy dawal économie. alors li jëm yi tamit ci euh, ñaari roue yi maanaam ñi nga xam te ne ñooy dawal moto yi léeg-léeg ay livreur la ñuy doon euh, di def euh, li nga xam te ne moom lañuy wax cek-cek mu mel ni manifestation saa su amee tamit ñoom dañ koy yëg bu baax a baax ndax dañuy mujje rek arrêté seen i activités. waaw xam nga secteur boobu secteur bu sensible la léegi. pourquoi parce que boo seetee xale yi ngay gis nii yëpp ay universitaire ak yooyu yëpp ndeysaan comme liggéey amul kër da ngay gis di dem kër yu bëri boo fa demee da gis li koy dundal léegi moom mooy ñii ñuy wax borom tak-tak moo tax ñu bëri ci dëkk bi yëpp parce que au moins bu ci xëyee jour bi mun nañ ci am loo xamante ni peut-être dinañ ci mun a joxe dépense léegi kër yu bëri ñooñoo leen yore imagine léegi yow état bi chaque fois que bu amee bruit mu ne ñooñu dañu arrêté ça veut dire ñooñu li ñu doon yóbbu ci kër yi kër yooyu yëpp am nañ problème parce que dootuñu lekk dootuñu naan que kii ko demoon ko wuti évidemment ñoom ñëpp dañ koy jël. comme comme digital bi tamit mu mel ni euh, dafa sooxee bu baax a baax rawatina coupure internet euh, mobile bi nga xamante ne léeg-léeg ñu ngi koy def mu mel ni mën na indi tamit ay jafe-jafe ci wàllum koom-koom bi. waaw man xam nga li ma ci gën a metti ci loolu mooy koy def xam na lu mu doon ki koy def xam na impact bi mu am muy coupé internet moo tax gis nga gis dëkk dafa dañ ko war a teg ci yoon parce que yow nga coupé internet yow conséquence dafa garaaw digital donc nit ñi ñu ngi H24 ci seen téléphone ça veut dire que c'est un moyen déjà pour te déstresser parce que kii stressé wu dafa am fu mu soxla wu pour échapper wu da ngay gis ñëpp foo tourné nit ñi ngi taxaw di échapper wu ci seen téléphone donc am na benn impact déjà bu dul économique rek mais impact social la boobu noonu parce que nit ki di làqatu ci téléphone am ba pare économie boo seetee ñii di jaay ay nu tëddee euh, jaay Orange Money Wave et cetera ñooñu ñëpp. ak yeneen activité kii di liggéey sax ak maçon bi di liggéeyal nekk ci muy liggéeyal nekk à l'étranger bugg lu muy def mu daat koy woo kooku yónnee ko xaalis loolu ñooñu ñëpp nag day bloqué te ñii bloqué li moo indi li conséquence à dire conséquences yi sont parce que ñooñu dañu yore famille yu bëree bëri bëri ñu bëri dépendre leen ñeneen ñoo xamante ne tam seen économie dafa dépendre loolu yëpp nga bloqué ko pour de motifs politiques loolu moo am suñu de te li ci metti moom mooy gën a xam impact yi muy loolu hmm. moo ci gën a garaaw. yan pexe la ñu war a mën a lal ngir rek mën a éviter yi tamit perte yooyu la. man je pense que pexe yooyu mi ngi ci ñun ba pare moom mooy d'abord suñu constitution lañ ko respecté gis nga constitution moom mooy loo xam te ni moo ñu tënk ñun ñëpp nga mel ne nga nekk jullit nga jël alxuraan la tënk buñ ko bindee mu neex nit ñi mu naqari leen foog ñu respecté ko munoo xëy yow nga jékki-jékki sa yëf jot nga ne yow dootuma ci jóge parce que. bugguma fi benn régime bi ñëw bugg yow loolu yow yaa koy choisir bàyyil waa dëkk bi ñoo xam te ñoom ñoo loo teg foofu ñooñu ñu xalaat ba xool ki leen intéressé nit ña génnee foofu ñu teg la ko loolu foog nit ñi di koy respecté constitution kenn moomu ko mhm. da nga koy respecté tant que nag commencé wuñu di respecté constitution yi mais problème yii du fi jóge te li ci gën a garaaw moom mooy exemple lay jox pour keneen il faut que nit ñi di respecté li ñu naan constitution moo ñu tënk ba jour boo xamante ni d'accord tuñ am na moment yu ñu mën a toog dafay référendum changer liñ ciy changer mais tant que yaa ngi ci da war a respecter te loolu moom mooy premier affaire bi moom mooy ñu respecter ñu doon élection war a jot nit ñi nañu dem élection jàmm am après bu ñu amaatee beneen régime kooku déroulé ñu xool économie bi mun a demal loolu moom mooy premier élément bi parce que loolu bu taxawul rek leneen yëpp mënul imbriqué wu ci gannaaw. alors docteur Mamadou Hann euh, jërëjëf may fàttali rek ne économiste nga en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.